يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون عباد الله إن من نعم الله تعالى علينا في هذه الشريعة المباركة أن ألف بين قلوب المؤمنين وجمع شتاتها ولم شعثها وقد شرع الله سبحانه وتعالى لتحقيق ذلك شرائع وحد حدودا ففرض سبحانه وتعالى على المؤمنين واجبات وحقوقا لبعضهم على بعض تصلح ذات بينهم وتجمع قلوبهم وتؤلف بين صدورهم فكان من تلك الشرائع حق الجو حق الجوار أيها المؤمنون إن حق الجار على جاره مؤكد بالآيات البينات والأحاديث الواضحة فهو شريعة محكمة وسنة قائمة قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وفي الآية الوصية بالجيران كلهم قريبهم وبعيدهم مسلمهم وكافرهم وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الجار تأكيدا عظيما ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وهذا يدل على تأكيد حق الجار فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظن أن نهاية هذا الحرص وتلك الوصايا من جبريل عليه السلام أن يكون للجار نصيب من الميراث أيها المؤمنون إن حقوق الجار كثيرة عديدة وهي fi ljumlati daa'iratun ala thalathati huquq ala thalathati huquqin kubra alixsaanu ilayhim wa kafu aladaa anhum wa ixtimaalu aladaa minhum amma alxaqu alawal fa innahu alixsaanu ila aljiiraan faqad amara allahu subhanahu wa taala bidalika fi kitaabihi fa qaala subhanahu وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار والجار الجنوب وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكرام الجار وجعل ذلك من لوازم, من لوازم الإيمان فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أيها المؤمنون إن من الإحسان إلى الجيران سلامة القلب عليهم وحب الخير لهم ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه وفي هذا تاكيد حق الجار وان الذي لا يحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير فإنه ناقص الإيمان وفي هذا غاية التحذير ومنتهى التنفير عن إدمار سوء بالجار قريبا كان أو بعيدا أيها المؤمنون إن من الإحسان إلى الجار الحرص على بذل الخير له قليلا كان أو كثيرا كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا نساء المسلمات laa taxqiranna jaaratun li jaarati li jaaratiha walaw firsi nashaat qaala alxaafid ibnu xajar rahimahullah ay laa taxqiranna an tuxdiya ila jaaratiha shay'a walaw annaha tuxdi maa laa yunfaau maa laa yuntafaau bihi fi lgaalib maa laa yuntafaau bihi fi lgaalib walmaqsuudu an yatawaasal alxayru walwuddu walbirru bayna aljiran fa fi saxiixi muslim min xadiisi abi darrin radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam yaa aba dar ida tabaxta maraq fa akthir maaha wa taahad jiraanak wa awla annaasi bilixsaani min aljiran أقربهم منك بابا ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهم أيهما أهدي قال صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقربهما منك بابا وأما ثاني الحقوق فهو كف الأذى عنهم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي لا يأمن شره وخطره وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه وهذا فيه تعظيم حق الجار ووجوب كف الأذى عنه wa anna idraarahu min kabaa'iri ad-dunuub wa cadaa'imi al-macaasi wa qad cazama allahu jalla wa calaa ilhaaqa al-adaa bil-jaar wa qallada fiihi al-cuquuba fa fi saxiix can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal su'ila rasulu llahi sala allahu alayhi wa aalihi wa sallam ayu danbi acdam fa qaal an tajcala lillahi niddan wa huwa xalaqak qultu summa ay qaal an taqtula waladak xashyata an yakula maak qultu summa ay qaal an tuzaaniya xariyata jaarik wa fi musnad al-imaam ahmad qaala sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam la an yasriqa ar-rajulu min ahli ashrati abyaat aysaru min an yasriqa min bayti jaari wa amma thalithu alxuquqi alkubra fa huwa ixtimalu alada minhum walsabru ala xataihim waltagafulu an isaatihim fa fi musnad alimam ahmad an abi darrin radi allahu anhu qaal qaala rasulu llahi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam inna allaha jalla wa ala yuhibbu thalatha wa yubghidu thalatha wa dhakara fi thalathati alladhina yuhibbuhum rajulun kana lahu jaaru suu yu'dhihi fa yasbiru ala adhahu xatta yakfiyahu llahu iyahu bi xayatin aw mawt ayuha almuminun inna annadira fi waaqi nnaasi alyawm yara kayfa أن الدنيا قد استولت على قلوب كثير من الناس فعصفت بكثير من الأخلاق والقيم وأنست كثيرا من الحقوق والواجبات الشرعية فتباعدت القلوب وتنافرت النفوس فعق الولد أباه وقطع الأخ أخاه وهجر الجار جاره فضاعت الحقوق wa qaamat suuqu alqatiicati walcuquuq illa man raxima allah fa kam hum alladina asaa'uu ila jiiraanihim fa manacuuhum alixsaan wa badaluu lahum alqatiicata waladaa fattaqu allaha cibaadallah wa axsinuu ila jiiraanikum muruuhum bilmacruuf wanhawhum can almunkar ubduluu lahum alxayra ma istatactum وردوا عنهم الشر ما ملكتم تلطفوا إليهم بالهدية والزيارة فإن لم تجدوا خيرا فإن لم تجدوا خيرا تبذلونه فلا أقل من كف عن من كف الشرع شر عنهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi gannaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhaanahu wa taala ak bàyyi xel doxalinu yonante bi alayhi salaatu wassalaam ci suñuy wax ci suñuy pas-pas ak ci suñuy jëf bàyyi xel ñaari mbir yooyu jëfe ko moom mooy tax ñu texe àdduna ak àllaaxira rawatina jéem a xam li yonante bi alayhi salaatu wassalaam nekkee woon ñu yar ci suñu bopp yonante bi alayhi salaatu salaam moom moo wax ci bu wér ne ma taraktu shay'an yuqarribukum ila allah wa yubaidukum an innar illa wa amartukum bi amul lenn loo xam ne lu am la loo xam ne bu ngeen ko defee jege borom bi subhanahu wa taala sori safara lu dul leeral naa ko bu mu leer naññ sant leen ngeen topp loolu wa ma taraktu shay'an yubaidukum an illah wa yuqarribukum ila annar illa wa nahaytukum anhu amul it loo xam ne am na loo xam ne bu ngeen ko defee sori borom bi subhaanahu wa taala nar a jege safara lu du leeral naa ko leer naññ tere leen ngeen tàbbi ci loolu kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaanam wàcc na comme ni ñu koy waxee ci ñun la des jéem a xam ci lan la nekkoon ci ay pas-pas ak ci ay jëfam ak ci ay jikko ñu jéem cee yar suñu bopp yàlla nañu ko borom bi subhaanahu wa taala yombalal mbokk yi bokk na ci xéewal yi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala wàccee na ko suñu kaw mu jaarale ko ci charia bi nga xamante ne moom mooy charia bu bàkkeel bi mooy borom bi subhaanahu wa taala tàppe xoolu jullit ñi borom bi subhaanahu wa taala dajale leen borom bi subhaanahu wa taala nag yoonal ci mën a sottal loolu mu yoonal ay santaane naka yooyu mu rëdd ay frontière mu farataal ci jullit ñi ay farata ak ay àq yoo xam ne ñenn ñi am nañ ko ñeel seeni mbokku jullit loo xam ne buñ ko defee dafay yëwanal seen diggante dina boole seeni xol tàppe xol yi nekk benn boole leen kon bokk na ci àq yooyu loo xam ne lislaam yoonal na ko ngir jullit ñi sàmm ko ngir ñu nekk benn moom mooy aqi dëkkandoo aqi dëkkandoo borom bi subhaanahu wa taala daf kaa feddali ci alquran yonente bi alayhi salaatu wasalaam leeral ko ci ay waxam mu nekk yoon woo xam ne bu ñu santaane la dafay def fii ba ilaa yawm alqiyaama mu nekk sunna bu taxaw la boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf cee xirtal jullit ñi borom bi subhaanahu wa taala moo ne nangeen jaamu borom bi subhaanahu wa taala te bu leen ko bokkaale ak kenn wala leen ngeen rafetal jëmale seeni ñay way jur ngeen rafetal jëmale seeni jege ñaale ngeen rafetal jëmale ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jirim yi rafetal jëmale ci miskin yi waaye rafetal jëmale ci dëkkandoo yi moo xam bu jege la wala bu sore la nee na ak lépp loo xam ne mën ngeen ko ci loolu waaye borom subhaanahu wa taala bëggul képp koo xam ne dafay rëy rëylu di wane boppam kon ci aaya boobu dénkaane bu rëy la boo xam ne borom subhaanahu wa taala mu ngi koy dénk képp ñépp ñoo xam ne ay dëkkandoo lañ moo xam say jege ñaare la ci wàllu deret ñu nekk say dëkkandoo wala ñoo xam ne dañoo sori moo xam ay jullit lañ wala ay yéefar lañ yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam feddali loolu ci ay waxam mu rotti saxiix al imaam al buxaari ak muslim ci xadiis abdullah ibn umar ak aïcha radiallahu anhum jamian ñoom ñaar ñu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na jibril de dañul saa yu ñëwee ci man di ma dénk samay dëkkandoo ba dem ba yaakaar ne sax ne jibril dana dem ba wax ne kenn si ñun bu faatoo keneen ki day doon moroomam kon loolu dafay feddali ak yi nga xamante ne dëkkandoo yi am nañ ko seen biir yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon loolu la wane ci loolu mbokk jullit ak dëkkandoo nag yu bëree bëri la waaye mën nañ ko tënk ci ñetti mbir ci ñetti àq yoo xam ne yu rëy la bi ci jiitu mooy al ixsaanu ilayhim mooy rafetal jëmale ci ñoom ñaareel mooy kaful ada anhum fexe ba tee sa bopp ba loraange du jóge ci yow dem ci ñoom ñetteel bi mooy waxtimaalul ada minhum loraange yi nga xamante ne mën naa bàyyeekoo ci ñoom nga muñ ngir borom bi subhaanahu wa kon àq bu njëkk bi moom mooy al ixsaanu ilal jiraan rafetal jëmale say dëkkandoo loolu junj nañ ko sànq ci aaya bi borom subhaanahu wa taala wax wa bil walidayni ixsaana wa bi dil qurba wal yataama wal masakin wal jaari dil qurba borom subhaanahu wa taala tudd ci loolu rafetal bi ngay rafetal ci catégorie ñooñu mu tudd ci ki nga xamante ne moom mooy moom mooy sa dëkkandoo ci saxiix muslim ci xadiisu abi hurayra radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne képp koo xam ne gëm na borom bi subhanahu wa taala gëm ne yawmal qiyaam dina taxaw gëm ne di nga taxaw ëllëg ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mu xisaab la régler la lépp loo xam ne def nga ko ci àdduna nee na ki nga xamante ne gëm la loolu kon na rafetal fal yuxsin ila jaari na rafetal jëmale ci ki nga xamante ne moom mooy dëkk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëmul foofu waaye daf cee teg ngay teral ki nga xamante ne moom mooy sa dëkkandoo mu def loolu mu bokk ci mbir yi nga xamante ne moom mooy matal ngëm borom bi subha ngëm borom bi subhaanahu wa taala mu ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim jaara képp koo xam ne gëm na borom bi subhaanahu wa taala gëm ne bés penc dina taxaw dina taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala nee na na teral ki nga xamante ne moom mooy dëkkandoo bokk na nag ci rafetal bi ñuy rafetal jëmale suñuy dëkkandoo moom mooy ñu am xol bu set wecc boo xam ne amul lenn loo xam ne dañ leen koy dencal ci suñu biir xol moo xam ci wàllu iñaan la moo xam ci leneen la lépp loo xam ne gàkk-gàkk la boo xam ne dafay nekk ci biir xol nga amal ko ki nga xamante ne moom mooy sa dëkkandoo fexe ba sa xol set wecc ci loolu bokk na ci xubbul xay xubbul xayri nga yéene leen yiw bëggal leen yiw mi nga xamante ne moom moo bëggal sama sa bopp ndax rod na ci xadiisu anas ibni malik radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na maa ngi génn ci ki nga xamante ne sama bakkan mu ngi ci loxoom nee na ab jaam du gëm mukk gëm goo xam ne bu mat la bu fekkente ne li nga xamante ne moom la bëggal boppam moom mooy li nga xamante ne moom la bëggal dëkkandoom li mu yéene boppam moom la yéene dëkkandoo kon ki nga xamante ne loolu amu ko jikko jooju amu ko na jàpp ne ngëmam ci borom bi subhaanahu wa taala ngëmam ci lislaam ngëmam ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngëmam ci li nga xamante ne moom mooy njàngale sharia lu manqué la ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom moo moom moo santaane loolu bokk jullit ñi bokk na ci rafetal jëmale ci suñuy dëkkandoo moom mooy ñu am xër ci di leen ëndil li nga xamante ne moom mooy yiw moo xam ci luñ leen di may la moo xam ci wan leen yoon boo xam ne dinañ ci jaar borom bi subhaanahu wa taala gërëm leen wala loo xam ne dañ leen koy may moo xam lu bari la wala lu néew borom bi subhaanahu wa taala moom moo ne la yunfiq du saatin min saati yi nga xamante ne am na li mu am te mu yaatu na ci dépensé joxe ci yoonu borom bi subhaanahu wa te loolu bokk na ci ñi si gën a yàlla mooy ki nga xamante ne moom moo la gën a jage ci li nga xamante ne ñoom ñooy say dëkkandoo nee na ki nga xamante ne amul nag wala lu mu am lu néew la na génnee ci li nga xamante ne moom la am ndax borom bi subhanahu wa taala dina kuutal jàpp dal mu rot ci as-sahihayn ci xadis abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés dafa ne eey yéen jigéenu jullit ñi kenn ci yéen bu mu xeeb mukk ab dëkkandoom wala lenn loo xam ne da koy defal dëkkandoom ak lu mu ñàkk-ñàkk solo loo xam ne mën nañ kaa maye na jël jox ko may ko ngir yàlla ngir rataxal li nga xamante ne moom mooy seen diggante ngir it topp santaane yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alxaafid ibnu xajar muy fii di xadis boobu dafa ne yonent bi alayhi salatu wasalaam li mu jublu ci loolu mooy na jël loo xam ne doonte lu ñàkk solo la maanaam mu jox ko doon de sax lool loo xam ne bëriwul luñ koy jëfandikoo na ko jox mu nekk loo xam ne dafay tàppe seen xol dafay nekk loo xam ne dafay yëwanal seen diggante ndax loolu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam santaane abi darrin radiallahu anhu mu ne benn bés yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ma ne yow abu dar saa yoo demee bay togg sa biir kër ñeex fexeel ba ndox mu ngi ciy def mu nekk lu bari bu ko defee nga bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy say dëkkandoo maanaam nga may leen loolu yëpp yonente bi alayhi salatu wasalaam li mu ci jublu mooy jullit ñi gën a bëggante seen sàppe nekk benn waaye ñu yéenante li nga xamante ne moom mooy moom mooy jàmm ki gën a yella nag ngay rafetal jëmale ci moom mooy ki nga xamante ne buntu këram moo la gën a jege sunu yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne benn bés laajoon nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala laaj na ko ne am naa ñaari dëkkandoo am na lu may maye kan laa ci war a jiital yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kii la gën a jege ki nga xamante ne buntam moo la gën a jege moo gën a jege sa kër nee na kooku moo ci gën a yàlla topp ci ki ci topp topp ci ki ci topp mbokk yi ñaareelu àq ci àq yi rëy yi nga xamante ne ameel nañ ko suñuy dëkkandoo mooy kaful ada anhum fexe ba tee suñu bopp ci ay loraange yoo xam ne mën na jóge ci ñun di dem ci ñoom mu sax ci albuxaari ak muslim ci xadis abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na képp koo xam ne gëm na borom bi subhanahu wa taala gëm bés penc bu mu lor ay dëkkandoo lor dëkkandoo nag am na ay façon jamono ji nga xamante ne nit ñaa ngi noppaliku say waa kër di yuuxu ñuy dérange ñi nga xamante ne seeni dëkkandoo lañ yoo xam ne amaana soxla nañ noppaliku soxla nañ dallu wala ngay teg ay musique wala yu nu mel loo xam ne dafay dérange nit ñi wala baare yoon bi di ci def loo xam ne soxlaalul jullit ñi amaana sax ay mbir la yoo xam ne ñu araam la nga siiroog say dëkkandoo kon loolu jullit bi war na cee bàyyi xel bu baax a baax moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés mu ne wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin mu wax ko ñetti yoon mu ne giñ naa ci borom bi subhanahu wa taala gëmul gëmul wala gëmum manqué na ñu laaj yonente bi alayhi salatu wasalaam man ya rasulallah kan la ngëmam matut wala kan mooy ki gëmut yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ki nga xamante ne dëkkandoom muccul ci li nga xamante ne moom mooy ay loraangeem kooku de ngëmam ci borom bi subhanahu wa taala lu manqué la kon la lu rëy la jullit bi war cee bàyyi xel mu nekk lu war ci ñun li nga xamante ne moom mooy loraange ñu fexe ba tee ko ba du àgg si ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy suñuy dëkkandoo ñetteelu àq ci àq yu mag yi nga xamante ne amal nañ ko suñuy dëkkandoo mooy ixtimaalul ada anhum maanaam ñi dëkk nag yenn saa mën nañ am ay rëcc-rëcc maanaam jullit nit la te nit dafay dafay rëcc la yenn saa yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na doomu aadama yi dañuy juum waaye ki gën ci ñoom mooy ki nga xamante ne dafay juum dellu tuub ci borom bi subhaanahu wa nit ki mën naa rëccale seytaane mën na kaa noot ci jamono ji nga xamante ne sàggan na ba am ay mbir yoo xam ne dafay rot jóge ci moom dem ci dëkkandoom bokk na it ci jikko yu rëy yi nga xamante ne jullit bi war na ko am mooy muy jëllale di muñ mbir yi nga xamante ne yu ñaaw la wala yu rafetul yoo xam ne dafay jóge ci dëkkandoom di ñëw ci moom ndax loolu mën ki ko am dafay mujjee nekk imam ci biir ci diina ji ndax borom bi subhaanahu wa taala tàgg na ñu mel noonu mooy ñi nga xamante ne dañuy dañuy muñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne borom bi subhaanahu wa taala bëgg na ñett catégorie ci doomu aadama waaye it bëgg bañ na ñetti catégorie ci doomu aadama yi mu bokk ci li nga xamante ne tudd na ko ci li borom bi subhaanahu ci borom bi subhaanahu wa taala bëgg mu ne rajulun kaana lahu jaaru waajoo xam ne dafa amoon dëkkandoo boo xam ne eh, ay ñaawteef dong la doon def yudihi di ko lor nee na waaye fa yasbiru ala adaahu muy muñ ci loraange yi nga xamante ne moom mooy jóge ci moom ba borom bi subhaanahu wa taala wàccee ngërëm mbokk yi loolu rëy la jikko ju rëy la waaye du ko am lu dul ki nga xamante ne jéem naa yar boppam jéem naa jàng histoire yonante bi alayhi salaatu wasalaam xool moom nan la doon muñee rawatina jamono ji nga xamante ne mu ngi tàmbalee di woote ci lislaam métti bu nekk teg nañ ñi ko doon teg mooy ñoo xam ne ay jege ñaaleem lañ ci wàllu dret ay ñoo xam ne ay dëkkandoom lañ waaye ànd ak loolu yëpp yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon muñ loolu mbokk yi waaye li gën a tiis mooy ku xool jamono ji doomu aadama yi dañuy dundee dina gis ne àdduna moom moo ñu noot li ñuy gis mooy àdduna moom moo fees dell ci suñuy xol moo tax lu bëree bëri ci jikko yu rafet lu bëree bëri ci ay valeur yoo xam ne l'islam daf kaa jàngale woon démb mu nekk loo xam ne daanaka dafa réer a xamatuñ ko adduna fàttalooñu lu bëree bëri ci ay àq yi nga xamante ne amal nañ ko suñuy moroomi jullit moo xam ñu jege lañ wala ñu ñu sori xol yi féewaloo waaye bakkan yi sore doom di mooy ki nga xamante ne moom mooy baayam rakk di mooy ki nga xamante ne moom mooy magam dëkkandoo gàddaay moromi dëkkandoo ñu jalgati li nga xamante ne moom mooy àq yi loolu nag li ko fi jëlee mooy ñu dellu dellu boo xam ne dellu bu wér la ci lislaam dellu bu wér ci jikko yonente bi alayhi salaatu wassalaam dellu bu wér ci li nga xamante ne noonu la saxaaba yi doon dundee nekkoon ay dëkkandoo jamono ji nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaroon na leen yar wi nga xamante ne moom lislaam bëgg ñu jàng loolu xam ko jëm ca yar suñu bopp am li nga xamante ne moom mooy ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi ñu ngi dellu di dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhaanahu wa taala di leen dénk dénk suñu bopp ni ñuy rafetal jëmale suñuy dëkkandoo di leen digal lu baax di leen tere lu bon lépp loo xam ne mën nañ ko ci yiw ci lu baax ñu leen koy defal lépp loo xam ne ñaawteef la ñu fexe ba du àgg ci ñoom lépp loo xam ne mbaax la ci maye wala leneen ñu fexe ba muy àgg ci ñoom loolu moom mooy tax borom bi subhaanahu wa taala tàppe xol yi julli ñi delluwaat li nga xamante ne moom lañu amoon ti jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu amaan rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasanatan wa qina adaaban naar rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiu alim wa tub وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم رحمة